boy boy boy boy boy boy boy ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal moor Ndiaye ak Baye Dama ci jàppandal gi euh, dañuy dem nag foofee nga xam ne mooy Diourbel ñu ñu fay signaler ni am na manifestation yoo xam ne am na fa dañu fay fekki ku ñuy wax euh, suñ Papis di suñu naataango Papis salaamaaleykum Papis ñu ngi lay ziar. salaam waaleykum salaam maa leen di nuyu waa INSEC euh, leen bu baax a baax tey nag ñu ngi fii kër gu mag mooy quartier Médinatoul euh, ñu ngi ci yoon bi nga xamante ne moom moo jëm euh, kër Soxna Daba euh, jeunes yi nekk foofu noonu actuellement nee nañ danoo sonn ci ne mooy couvre-feu bi taal nañ ay pono ci li nga moom mooy ci digg tali bi police yi amuñu effectif xamante ne war nañu mën a li nga xam mooy booy yi parce que booy yi dàq nañ nga xamante ne yëpp moom mooy ñi nga xamante ne ne ñoo fa dem xàmmewuñu journaliste xàmmewuñu luy kii même boo soli boo yoree sa badge sax dàq ko wékkoo ko xàmmewuñu la xam boo yoree ak caméra sax boo xamante bu mag la ñu xam ne yow bi journaliste ko dañuy sànni ay xeer nee nañ leen yi nga xamante ne mooy booy nag ñu ngi gën di avancé di ñëw mais ñun saa suñu ñëwee rek dañuy gën di daw ñu ngi taal li nga xamante ne mooy mbedd yi tey jii nii su nekkoon loo xamante ne lu am image la ñu war la ko won euh, dañ la koy yónnee léegi ñu won la ko waaye nag euh, wax dëgg fa yàlla euh, actuellement booy ñoom ñu ngi si li nga xamante ne moom mooy si booru si tali bi taal fépp kenn mënut a jàll fenn kenn mënut a dem fenn actuellement ñu ngi taal li nga xamante ne mooy ca digg yoon yëpp daf si ay ponu kenn mënu leen a jegeñ police yi reculer leen ba nekk si nga xamante ne moom mooy si angle bi loolu daal moo fi xew booy ñoom danoo sonn nga assez ras-le-bol li nga xamante ne moom mooy couvre-feu bi. Ah, ndax mën nañoo xam sëñ Papis booy ñoom instant bi destination fan la ñu jëm instant bi nii. ma ne ndax mën nañoo xam instant bi booy ñoom fan lañ jëm maanaam daal euh, seen manifestation bu fan lañ ko bëgg a teerale jee ndax loolu xam nga ko sëñ Papis. ah ñoom daal ñoom nee nañ dañoo bëgg di génn ci mbedd mi di plainer xamaguma ñoom exact parce que ñoom mënuñoo bouger daal ñoom dañuy dàq policiers yi policiers yi dem rek ñoom mënuñoo bouger benn instant. Mhm. kon Papis xam naa ñu lay jaajëfal bu baax